oto bu njiitu réew mi maanaam euh, limousine bi mhm. euh, bi ñu demee bay dugg euh, Ngéeñeen jógee fi nga xamante ne moo di Ngazobil mhm. jël télé bi di daw di daw bay dugg ci biir dëkk ba boobee sax am na mbooloo mu takku bi nga xamante ne moo nekkoon ci yoon wi mhm. di gàttandu ñi nga xamante ne ñoo di le cortège du président oto bi mu nekkoon ci limousine bi moom ak Ibrahima Boubacar Keita moo jékki jékki takk ñen ñi xam nga rek bu lu ni mel amee ku ne da nga joxe sa xalaat waaye dafa tak automatiquement ñi nga xamantene ñoo di sécurité bi euh, également euh, évacuer président bi ak ki nga xamantene ne moo di euh, euh, le président malien ibrahim Boubacar keita dugal leen ci yeneen oto. Mhm. sapeur pompier yi noonu lañ demee itam ndax oto am na oto sapeur bi ànd ak président à tout moment. waaw ñoom ñu ñëw euh, fay. fay fay lakk bi. ndax oto boobu bi baax leen kii Abdourahmane di wax. Mhm. moom mooy ci oto 4x4 bi nga xamantene fa lañ leen euh, mujjee dugal ñoom euh, ma Sall ak ki nga xamante ne moo di Ibrahima Boubacar Keita gannaaw bu ñu leen jëlee ci euh, limousine présidentielle bi nga xamante ne ca lañ duggoon ba bi ñuy dugg fii ci. safa bi ñuy dugg sax ndax ci biir dëkk bi la pratiquement foo mhm. foofee daal oto bi commencé saxaar takk takkee ci capot bi mhm. noonu la sécurité bi génnee leen dugal leen ci oto bi ñu bi ñu leen di yóbbu itam ñoom ñi nga xamante ne ñoom mooy garde présidentielle bi la garde rapprochée dañoo daal oto bi Ah, di daw ak mom ndank ndank ndax auto bi monatul won daw bu ndax mu yon ci biir dëkk bi jëmale fi nga xamantene moo di ah, ci eh, jumaa